cantoog ngërëm ñeel na yéen ñi safoo Dakar instant ni ñu koy defee saa su ne seen beneen euh, nee la waxtaan waaye itam dañ koy ànd ak saa su ne ki nga xamante ni moo di euh, Moustapha Dramé ñu gën ko xam ci yàllay kese dañ koy bàyyi mu nuyoo au micro de Dakar instant. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna. Mhm. di nuyu fi dëkk ñëpp di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala. Mhm. yal na yàlla def si réew mi jàmm. Mhm. def ko ci réew yi ñu wër yëpp te ab Sénégal ne fa. fu a néewul nag moom yàlla na fa jàmm yàgg yi itam nag waaye nag ñu Sénégalais fa nekk ñooñu intéressé rek fu yaay mën a dañu la ñaanal yàlla mucc ak muccule mhm. na bay bay bay ñu ne ñaanal jàmm koo xam ne yéene nga ñu jàmm ñu ngi la ko ñaanal ku ñu kii ñu ngi la ko ñaanal mhm. fu waay ne daal la ngay a sakkuteef mhm. yal na ko yàlla yombal macha allah bi sallallahu alayhi wa ak ki sax na tiyaan Allahumma amiin nuyoo gi am na solo lool nee naa dañ fi ñëwoon def waxtaan bu am solo ci li nga xamante ne danga koy liggéey dinañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye itam nga yaataloon ñu bu baax sa relation ak ki nga ni moo di Seydina Fall ñu gën ko xam ci Bougazelli macha allah affaire bi am ampleur lool waaye cette cette fois ñëwaat ci beneen actualité ndax li wax saa su ne Dakar instant xamante ne dugg na fa naam dina waxtaan waaye itam heure bu ñuy dem dinañ fa jëlee li nga xamante ne mooy actualité lu soxal askan wi dañ koy door ak li nga xamante ni ni moo di euh, sëriñu daara bi nekk fële ci Louga di Cheikhouna Gueye yoon tegoon ko loxo gannaaw ba mu jéngee ab tout tànk yi ndongo daara yi nga xamante ne dañ fa nekkoon nga bëgg a andi ay leeral yu ama am am solo ci coow loolu dañ lay bàyyi nga waxtaan ak askan waaw ñu ngi nuyu waa àdduna yëpp di wax rek laay waxaat mm-hmm. alquran kenn mënu koo xeex te yàlla dafa def nag ñun ñooñu taalibe yi ne ci daara yi di jàng alquran mm-hmm. heure bu ne nag ni nit mu ñu utal morom waaye amaguñ ko ba léegi waa daara ji diggante asamaan ak suuf yàlla amul fi lu gën ñiy jàng alxuraan ba noppi te di ko jàngale amul fi. Mhm. bu doon na politiciens yi rek la am musiciens yi nii yeneen gars yooyu noonu génération noonu. Mhm. yàlla tukkal na àdduna bu yàgg ndax ñoo amuñ jot jaamu yàlla amuñ jot wax ju baax amuñ jot def lu baax daanaka. musique rek li ñu yàq ëpp fukki junne yoon. Mhm. li ñuy defar ba doon ñoom képp la. yaa jël na fi adduna bu yàgg yàlla su fi bay àdduna bi. Mhm. waajur yu am seen doom di leen préparer am ci ñu mu yéene yëpp ko daara mu jàngi ak sa doom di nekk ci daara alxuraan di jàng ñoo ñoo tax yàlla bàyyi fi àdduna bi muy dox ba léegi waaye bu doon ne keneen ku ñii ma wax mhm. jël na fi adduna bu yàgg ndax kenn ku si suñu nangu si ñun kenn koo gis ku nekk ci lu ko amul njëriñ. Mhm. kon yàlla mi ñu sàkk nag ñàkk bopp ñàkk fayda gu dee ni bàyyi fi nit ku ko amul njëriñ. képp ku fi bàyyi rek amul benn njëriñ bala xam na comme les rusés comme les rusés nag kenn képp la xale bi nga xam ne mësargut mhm. amagul bàkkaar toog tudd yàlla guddi ak bëccëg muy yàlla ji kooku yàlla rus te ku ne am na ko rus sëriñ mhm. gis nii li coow li bari bari bari bari bari mhm. yàlla képp la macha allah te xaritu yàlla nag maqaam boobu jàmm bu ne xam na droit yegg fa yàlla nekk sa xarit copain yàlla kenn ku ne am nga maqaama am nga daraja joo góorgóorlu ba yegg fa. Mhm. maqaamab nekk yenent nag moom la vraiment de nekk waaye leneen loo mën a xelaat yàlla takku bi nit mën nekk yegg fa. Mhm. moo xam baax la moo xam lewet la moo xam moo xam jàngal Alxuraan la moo xam xam-xam yàlla may na doomu aadama ñu góorgóorlu yegg fa. Mhm. ci biir loolu. alquran amut morom. dama faral di wax ne boo xoolee mboolem xaalam bi mboolem àdduna bi. mboolem ñu fi nekk ñëpp yàlla nga ko tëxal ci juróomi araf muy baatu alhamdu alhamdu boo koy xool juróomi xaraf la liif la laam xaram del mim del boo xool waxtu julli juróomi juróom la ponk lislaam juróom la léegi nag nga boo xool baatu alhamdu mu nekk juróomi araf baatu xaraf bu ne rek am na maqaam bu taxawee ci mboolem waxtu julli juróom yi dañuy faral di wax ci beneen firi bu bokkut ak bi gaa yi jàng ci daara ji ne. Mhm. bu dee liif ku njëkk gi la waxtu julli tisbaar lay lay lay laam gi ci topp tàkkusaan lay mandargaal xaram del gi timis la miim gi gaaya la gi muy ñaari bëñ. Mhm. moo nekk ñaar ñaari rakk suba. macha allah alhamdu fàddu na jeex na takk kon. Mhm. waxtu julli juróom dugg na ci biir alhamdu. ñu forom fàcce ko nag ci araf yi topp mooy lillahi rabbil alamina arrahmanir rahimi booy xool lillahi mooy alhamdu lillahi gi ci laam laam laa xasa xam sax ca kaw mu mel ni ñett rakkay timis yi laam laam gu benn rakk la taxawee nga tegi sadd gi muy bëri gi nga koy maanaam li nga koy bëreel. Mhm. xasa xet gi ñëw mel ni lu wër nëtër muy lu noppi lu ñëpp nëtër moo tax ñetteelu rakk ku koy jàng du ko jàng ci kaw firiwuma nag firim daara ja mhm. beneen xeetu xam-xam laay wax dëgg la pour kemee seetaan xam ne alquran mhm. li nga ciy dëgg li muy réy réy say nopp li nga réere li nga réere mu ko ëpp mhm. rab bi boo koy xool ñaari xaraf la raa la ak baajoor am sadd ca kaw baaga raa baajoor rabbil rab bi maanaam raa baajoor la muy ñaari rakk suba dañ koy bérél. moo tax ñu koy jàng ci kaw sadaka ca kaw moo tax ñu koy jàng ci kaw mënuñu cee ñàkk. ngeen xaale mi na xëy ndigal la laam miim yaanu nara juróomi araf la liif laam gi njëkk. dooleeku la mboolem liif laam ko jàngaa ci alxuraan rek barkeeb alhamdulilah moo yor ba yegg ca waaye tax ko jóg. boo koy xool ñeent araf la xëy ndigal la laam miim yaanu nara muy ñeent rakkatu ci baar. bu jógee yaa ngi jëm ci arrahmaani. raxmaani googu ñeenti xaraf la moom it raa laa lan ko miim nu rax ñeenti rakkaay timis la raxiimi boo demee ñeenti rakkaay géex la raa la xal lan ko yaa mi ma rax ñeenti rakkaay géex kon tënk nga lislaam mm-hmm. jeex na gis nga nag ñeenti rakk yi boo ko boo dara boo xaraf yi xam na chiffre bi mu lay jox boo xam ne mu ngi composé cent soixante-trois cent soixante-trois mooy yàq yi alimenté ci biir doomu aadama doomu aadama ba mu ne gis mu dox doomu aadama bu meun gis muy dox. 163 mhm. yax mo nek ci biir jëmmam. d'accord mo xam faar yi la ak. Mhm. baaraam 163 la. soo cumulé. boko boko boko ko boo ko lepp ko multiplié la. Mhm. léegi 163 yoy no nek ci biir jëmmi doomu aadama. boo ak xarafi alquran yi mo xala ne rabbil alamin arrahman rahim. nga multiplié yaxi doomu aadama. yàlla bu bindoon nit ki ci xaramu arwahane ne juróom fu fukki at la mën a xam. xam na koy liggéeyee ci walu ñaan yalla ne ko dama bëgg 24 heures mu jógee fi billaahi wa kitaabi yàlla lam si ñoom Thiaw Mar wax dina ko effacé bindaa fa ne 24 heures ni ki dund mais lii ñuy jàng daara xam nañ ko. Mhm. kon képp ku xeex daara ñu baala 24 heures ngay dund. Mhm. ñun daara ñoo la topp ñu ñoo rey indi sans salam ci jëllale. Mhm. ak jéggale. ndax xam nañ ne loolu mandarga ci lewet ci jukkee di sans salam waaye amul ki mëntu duma nag te amul benn procureur buy président de la république buy faatu. Mhm. wala benn musicien. Mhm. buy faatu di xalaat ña nga bokkutoon bu waat wala ña nga bokkutoon liggéey kenn jiite la. Mhm. il faut nga dem seeti waa daara ji. ñu taxawee la julli la jéggal sa borom. coono yu bëri na mais ku dee saq daj waa daara ji. ñoo lay jàngal kaamil. ñoo lay sang. ñoo lay suuli. ñoo lay fidaaw. ana gars yi nga doon bokk liggéey ana greffier yi ana procureur yi ana juge yi ana président de la république. Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla yërëm kan ma ko jullee du waa daara ji ñan ñooñ jëng ca daara ji di leen dóor ñu jàng alxuraan ñoo ko jullee mm-hmm. ñoo ko fi ndax ña war ñëpp ministre xamuñu fi mm-hmm. boo leen waxee fi xamuñu ko boo leen waxoon ne leen fukki xurwa ak benn li muy jëriñ ci nit nekk ci bàmmeel mm-hmm. xamuñu ko boo leen laajoon ñeent sangee néew barki alxuraan karim ñëpp ñoom xamuñu ko nga laaj leen boo julli néew boo julli néew bu góor fooy taxaw ak bu jigéen fooy taxaw xamuñu ko kooku lan la mën a jëriñ kon ci yàlla. Mhm. loolu ñi ko xam mooy ñu ñot daara ñi. te li ngay wax nii xam-xam la. li may wax ni xam-xam la boo xam ne nii ku dee ku dee ku ne dañ ko jëriñ bala ngay dem. Mhm. képp ku dee di nga ci tuwo yii. Mhm. ku la sang ku la jullee. ku la fiddaawu. ku la ñaanee ñeent fukki xol juróom benn fukki isib am nekk maanaam téeméeri saar ak fukk. ak ñeent. am na ci saar boo xam ne amul bisimilah rahmaani rahim. saar boobu bisimilah rahmaani rahim ga mu nga nekk sootu namdu leen jël teg ko. maanaam téeméer bisimilah rahmaani mu am ak fukk ak ñett bi nekk sootu namdi mu ñëw ñeenteel ko mu nekk téeméer ak fukk ak ñeent. loolu nag gars yi dañ koy liggéey douze mille fois maanaam fukki junne bisimilah rahmaani rahim. ak ñaar maanaam douze mille trois cent douze. la ñu fi daaw doomu aadama pour yàlla suma suma taala jëggal ko. xab pour ndox mu sedd ci biir bàmmeelam. lii fukki junne bisimilah rahmaani rahim.